am na nag loo xamee ne waxoon naa ko nee naa woon ne ñiy julli si yëpp bu nekk booy ñëw na nga ni mille francs xam nga ni ngeen ko joxe ngeen comme déet gouvernement bi ñiy julli ci bokk ci gouvernement bi yëpp nañu ndiwaale seen wàll nañu tànn kenn jox ko ko sama jumaa ji xooluma ku joxe ca Tiwaawan sama yoon ci sama jumaa ku ci julli rek ma jiital nag ma jox dara ma boole ko si li may joxe yóbbu léegi ñu ñaan